bon tey la tey donc bu tout à l'heure di ngeen comprendre lu tax ma ne tey la tey ah maa leen di yónni tey la tey. vous allez comprendre. ne ratez surtout pas vers ay 17h15 yooyu yooyu rek ne ratez pas. Attendez-moi, je vais vous expliquer pourquoi tey la tey inchallah bàyyi tout à l'heure. waaw loolu wax ci bi. maanaam Babacar laay <laughs> waaw nii la nag yal na sëy bi barkeel. amiin yal na ci xéwal rek ànd. amiin yaa rabbi mu nekk takk aras yi. amiin yaa a baax yaa xale bu baax nga nag. amiin baax nga généreuse. yàlla <laughs> ah waaw waaw. Ah. ku am 18 ans la dafay neex. day neex def nga ba pare rëy ji day doy. bu ci dugg ci sama garde gi doo Gel mi nak mi bëgg neex. Ah xew mi neex na. Lay alasan ak señ. Waaw waaw. Ñu am 18 ans la ñu maye tay. Non sa portable 18 ans la sunu marié. Ñun ya. ñi and ak mom am 18 ans. Lo leen ci wax. Na barkel way. Na barkel, na barkel. Kan mo ci top nak? Nabir! Kan mo ati to punat? Tutu! Tsara lang ito. Yan lang ako ilat. Bakit lang ako? Kaya ako ang mam. Ako ang mam. Ha? Ako mam. Mamalo. Bumakem chokas. Ah! Tahu kerbang ni. Tahu kerbang ni. Nyak kujudu nyak kebak. Tahu nyak kujudu nyak kebak. Tahu nyak kujudu nyak kebak. Tahu nyak kujudu nyak kebak. Nyak kujudu nyak kebak. Tahu nyak kujudu nyak kebak. Tahu nyak kujudu nyak kebak. Tahu nyak kujudu nyak kebak.